voilà ni ñu ubbee mhm. eh, yaakaar naa tey eh, yéenekaay yëpp. Mhm. ak ci weekend bi. Mhm. ci loolu lañ doon waxtaan. mooy ku ñu wax ne. Euh, góor jigéen la faatu mm-hmm. ca euh, Kaolack ñu nag mm-hmm. ñu ko doon jéem a yóbbu Touba mm-hmm. ñu ñu bañ ko ñu xaar ba xaaja guddi jot ñu andi ko euh, fi nga xam ne moom mooy Léona Niassène ñoom itam ba ñu yégee ne daal ña ngi koy suul si foofu wala denc nañ ko ba pare dañoo mobiliser wu ñu dem sulli ko yeew ko yaakaar naa image yeeg yooyu ñu ci bari def na le tour du net la ca bees mooy communiqué bi nga xam ne procureur ba nekk ca procureur de République bi nekk tribunal bu Kaolack moom moo ko daal di euh, bind ginnaaw bi ko commissaire central bu Kaolack daal ne ko dafa ay nit yoo xam ne mhm. identifié wuñu leen ñoom ñoom woon ca cimetière bu euh, Léona Niassène mhm. euh, ca tomb kooku nga xam nag moom mooy Cheikh Fall mu ñu mhm. fa dencoon daal di koy génne lakk ko ci noonu nag mu ne ay actes yoo xam dafa jàpp ne daal acte du baax la. Mhm. noonu la ko tuddee muy interpellé nag euh, autorité ne loolu mun ñu ko bañ a teg ay daan yi nga xam ne daal jot nañu laale nañ ci wala euh, taq nañ ci moo tax mu demandé à que ñu ubbi enquête ngir mën a identifier képp koo xam ne euh, identifier nañ rek. Mhm. ngir tamit def engagé ay poursuites pénales daal pour ñooñu nga xam mhm. nañu jëf joojee. loolu nga xam ne def nañu def jëf joojee mu mel ne sax également déglu nañ ci chef de quartier bi nga xam xamante voilà waa ji fa la dëkk am na lu mu ci yëy yàbbi euh, du ñàkk bu dee euh, albura xaj nga si rek ñu déglu tuuti rek par rapport ak lu mu lu mu wax ngoon a ñëw joxe si xalaatam alxamis waaw ak ajjuma ba samedi lañ koy doog a euh, waaw lañ koy bon bu ko robee nag démb la woon samedi vendredi lañ ajjuma ci alxamis ci guddi lañ ko rob mais ñoom bu ko rob foofu oto sapeur pompier moo ko indi moins sëñ Babacar Niass war na leen ko wax porte parole Niassène bi amaku leen loolu. moom euh, wax nañu li mu ci li mu ci jot a xam. comme euh, donc sa sapeur-pompier moo ko yóbbu mais moom bu mu yóbboo dafa wax ñetti nit a ko yóbboon daf leen wàcce rek jël keesam taal otoom dem. alors ñoom comme toi lañ antanu ñu mu ñu woo keneen ku newoon foofu dans les parages jàppale leen mais robi précipitation lañ ko rob gas ba sax xóotul parce que dañ doon profité dañ doon daal alors lii daal mooy indi affaire bi. xam naa nag après écho yi dafa dem ci sëriñ bi ñaseen ñu yëg ko ci la amee benn mobilisation monstre démb boo xam ne kaw nag yëpp ñoo fa daje euh, euh, lu doy waar la loo xam ne kenn ñaanu ko ci réew mi man bugguma ko et il paraît que à présent yaayam dafa def crise ba succombé boo ba dee ci crise bi bii yaayam moom sa maman oui du ko ko jur. parce que l'essentiel bi dégg na ko ci par rapport li mu wax kooku di euh, chef de quartier gox bi nga xamante ni kii waa ji woowee turu Cheikh Fall euh, ni moom suñu borom moo daal di jël baxanam ñu koy tuumaal ni boroom ñaari tur yi la mais ngoone mm. euh, naam procureur Euh, euh, saisi autosaisir na ci dossier bi mais naka nga gisee acte boobu noonu. waaw xam nga moom lu ko lu ko war rek la def. bu mhm. fekkoon autosaisir sax si la ñuy poser la question lu tax defu ko. Mhm. mais xam nga lan lay laaj. Mhm. koo xam ne goo jigéen nga nekk ci koñ bi. Mhm. ba dee. Mhm. ni ñu doog a dénoncé que ne. Mhm. goo jigéen nga balay lakk ak balay sulli. ba mu fa nekkee góor jigéen man xam kon lu ñu def ba xam ne kii faatu tey goo jigéen la ça veut dire que xamoon nañ ko auparavant. lan moo tax dénoncé wuñ ko woon. lan moo tax génne wuñ ko bi. xam nga kenn du cautionné wàllum góor jigéen ki koy cautionné nekk ànd ak moom ñëpp man damay jàpp na ñoo yam àtte. mais tamit dañoo nekk ci dëkku lislaam lislaam am lu mu wax. mais fii goo jigéen bu fi am doole ci Sénégal man ci li ma jàpp mooy jigéen ñi ñoo la may doole xam lu tax. Hmm. da nga koy xool ci xew ñi am barke xew ñi am xaalis. Hmm. balaa ñuy mën a kontaan goo jigéen sañse ba rafet ñëw hmm. ci biir xew bi ñu jiiñ nit ki goo jigéen ñu bari di ko daw yow nga indi ko sa xew moo lay jokkalanteel moo lay waxal. boo gisee ñaa ñu xaw a am xaalis xuloo dañuy jëm jëli góor jigéen. fay ko xaalis pour mu xeexal leen xeex bi. nga gis ñoom ñooy ànd ak ñoom. ñoom ñooy sañse ñoom ñooy tàpp ñoom ñooy waxtaan ak ñoom ñoo leen di sanab ñooy toog di waxtaan après nga ne góor jigéen daf fi jóge fi jóge bu fekkee da nga nekk góor jigéen ci koñ nga doo ko sax Sénégal fii yaay am problème gisoon nañ li fi xew HLM. Mhm. goo jigéen bu ñu jàppoon doo ko xale yëpp nañ leen jël jàppaleen mhm. léegi nan lañu mën a def pour jëlee góor jigéen ci ci dëkk wala ci koñ. Mhm. mais ñi leen di may dool bu fekkee ñoom ñoo leen nar a dénoncé. kan mooy kan kan kan mooy boole. yow am na noo xam ne yow mm-hmm. tey mm-hmm. waxuma sax parce que pour nga am preuve que ne diw góor jigéen la peut-être dafay xaw a metti mm-hmm. mais dina am ñoo xam buñ la waxee ne kii góor jigéen ñëpp ko ñëpp dañ koy wax am na ci xale góor am fu la yoo xam ne duñ sax toog ak ñoom am ñu ñuy yàpp ak ñu dul yàpp nga ñu nekk ci ko ñu leen di wax na yenn xale góor yoo xam ne amuñu fit sax di leen xool di leen nuyu par contre am na ci ñeneen ñoo xam ne bu leen gisee dinga gis ni ñuy tàppante ni ñuy waxtaanee ak ñoom nañuy kiiwee nit kenn ko lakk yàlla santaanewul ñuy jël doomu aadama di ko lakk yàlla rek moom moom di lakk nit mooy xool ku muy dugal safara wala ku muy dugal àjjana mhm. peut-être ñoom li ñu def wax ñu ko woon def mais dama wax ne ñoom dañu ko waroon dénoncer mhm. bien avant muy dee mhm. parce que bu ñu xamee ne góor jigéen la ba mu dee ñu naan duñ ko fi suul ba muy dund ma nga woon ca koñ ba. Mhm. boobu lañ ci waroon jël ay matukaay. Mhm. mais mais mais mais li ma jaaxal tamit xam nga xam nga góor jigéen tamit dafa nekk loo xamante ni pour nga wax ni mi ngi mel ne njaalo rek pour nga tuumaal nit ki dafa njaalo foog nga am ay seede ak yooyu donc góor jigéen tamit pour nga wax ni nit ki góor jigéen nga affirmer ko foog nga am si ay preuve du si ay dafay xeesal wala dafay fréquenter ay. mais góor buy xeesal loo ko tuddee yow yow sa ñuulaay bi yàlla jox la ko nga xeesal sa loxo yi timpi tàmp fii mm-hmm. ñuul fii nga wax say tuñ mm-hmm. mais jëf jëf déjà xam nga même pas acte bi mm-hmm. jëf jigéen rek góor jigéen la toog di wax di mag say tuñ di def jigéen la te dañ koy gis ci kër yi ay jigéen ñoo leen di jaay xeesal ñoo leen di yaatal aussi ñoo leen di yaatal léegi nga bëgg na yow da nga fi jëlee góor jigéen yow ki lay yaatal ki nga xam ne pax gis nga même fan yee ñu paas gis nañ fi ay xale yu jigéen ay xale yu góor ci affaire simba gaynde yii ñu teg greffage ru def rouge à lèvres. Mhm. man pour man loolu pour que dafa woon autosaisir mhm. ñooñu ñu jàpp leen. Mhm. pourtant euh, feccikatu Wally Seck yi. fi lañ taxaw ci kaw seen fóonante bisu. ñu jël leen jàpp leen. parce que xam nañ ne peut-être que loolu baaxul ci xale yi koy gis ak yooyu. donc boo nekkee ci koñ gis fa koo xam ne dafa nekk ci tànk yooyu da nga koy teel a dénoncé ko fi génne. bul xaar ba mu dee ngay suul ak suuli ak ay takk. te leen ci fekk même bu fekkee dañ ko def pour. wan yeneen goo jigéen ne kat bu ngeen deewee lii moo leen fi xaar wala ñi fa nekk di jigéen jigéen lu te fekk ay góor lañu ne lii moo leen di xaar tey mun nañ na ci am problème ak yoon mm-hmm. parce que nga xam ne dañ ko defee mais góor jigéen kenn du ko cautionné mm-hmm. Mm-hmm. Euh, góor jigéen kenn du ko kenn du ko cautionné Albouraa mais aussi tamit Albouraa li ma jaaxal mooy ñoom bu dee dañuy ñëw lakk pour lakk waa ji mais ruuba dem na xotti nit kee fa des parce que nit ki su xasee ba dee ruuba dañ koy jël dem yàlla jël na ruub yaay. d' accord mais donc lan lañ bëgg lakk finalement. d' accord boobu boo dégloo waa ji. waaw eh, ngi doon wax naan ñi tëdd ci euh, armeel yi. Mm. ay borom mu baatin lañu ay borom mm. xam-xam lañu. Mm. mu ngi cay tudd sax euh, surtout sëñ Amidou Kane. ay kilifa ñoo fa tëdd. Euh, sànq ngoon dafa lu am solo maanaam góor jigéen ñi lu tax ñoom bu ñuy dund kenn du leen mën a dab parce dañoo am. ak ak yelleef ci réew mi mu ngi koy wax sànq. Mhm. fii ci HLM. Mhm. gars yi jàppoon góor jigéen dóor ko ba muy ba muy bëgg a dee. lan la ñu def dañoo jàpp ñu leen ñu leen doon dóor ñëpp. Mhm. ñii ñu jàpp leen ñi ci des dañoo daw. dañoo am yàq ak ak yelleef ci réew mi. kenn du leen laal. bant bu gudd ngeen di laal pouvoir lañ fi am. pouvoir nga. kon doo leen mënal dara ñoom nag wax dëgg neex yàlla li ñu def. doona am nañ ci droit. Mhm. wala amuñ ci droit dañuy xaar procureur mu wax parce que nag jamono yuñ toll cas bi fa xaw a danse. Mhm. Euh, ba kenn du ci nangoo xuus carrément. comme ni mu demee. Mhm. en tout cas lii am am na ba pare. ñii rafetlu nañ ko ña ci des wax nañu leneen de toutes am na ba pare. am na ba pare kenn mënu wax ci leneen. lakk nañ ko ba mu jeex. lii nag c'est signal fort pour wan yeneen góor jigéen yi xam ne ñoom ñoo nañ ci réew mi ñu xam bu baax ni ñuy def. parce que yàlla bind la nga nekk góor ngay def leneen bay jigéen jigéen góor jigéen nag pour pour nga ràññee ko dafay dafay dafa dafa simple de. Hmm. <laughs> Ouzin si téléphone bi pour nga ràññee ko dafa dafa yomb lool. ci doxin bi. Hmm. ci ñi muy fréquenté. Hmm. góor jigéen du fréquenté góor. jigéen rek lay fréquenté. ay jigéen lay àndal ci ay manière ci ni muy doxee itam. Mm-hmm. faw itam ñu xoolaat bu ñuy wax réew mi 97 mm-hmm. pour cent des sénégalais ay musulmans lañ yii di fi am wax dëgg neex yàlla ah. dañu koy dañu koy dañu koy dañu